war nañu def recrutement juróom benn téeméer ak fanweer ci ay jàngalekatu daara ci biir fonction publique fii ak at ak lu toll si deux tiers maanaam boo leen tànnee muy ñetti pàcc ñaar ñi déjà jot nañu ay salaire te ñu ngi mottali loolu ma ñëw e si li ñu wax ci bu six milliards dont un milliard loolu aussi li ñu def ba pare la mu des bu yegg si si yéen jël nañu mesure yëpp yi nga xam ni moom la ñu war a jël ngir jàppale daara yi ci wàll woowu loolu nag encore une fois dama wax dañ ko def ngir wàññi wàññi taalibe yi ci mbedd mi